xam ni ñoo doon fajul li nga xam ni moo di hémodialyse dañ leen a yóbbu foofee ca angaaru aéroport Léopold Sédar Senghor ñoom nag tey ñoo xëy amal ab ñaxtu ngir rek di xamal nguurub Sénégal que nekkin biñ fa nekk métti na ndox bu ñu naan sax amuñu ko ñoom nag ñii nañ nag foofu nguur gi daal leen di gëstu tuuti indil leen li ngeen xam ne moo di ab serna te daal di leen réglé li nga xam ni moo di ndox xibaar yi nak day daal di woy ñu dem jëli procès bi nga xam ne doxoon na ci diggante ki nga xam ni moo di kalifon Sall ak Adja Thiaré Diop ginnaaw nag ba ki nga xam ni moo di Adja Thiaré moo giñoon ki nga xam ne moo di Kaliphone Sall ab viol ba ñu jotoon dem ci loxol yoon moom mi nag di Sall ak Adja Thiaré Diop yoon daal transé li nga xam ne moo di verdict bi ki leen nag di Kaliphone Sall yoon daan na ko mu tudd ci lu tollook six mois de prison plus tamit mu tekk amende bu tollook ci cinq cent mille francs daf ko fekkoon ñu interné ko foofee ci hôpital le principal foofee ca wàllub psychiatrique xibaar yi nag tey rek xëy na xam ne ni nag kii di Adja Thiara Diaw jot na génn fi nga xam ne moo di hôpital boobu mu interné woon ginnaaw ba nga xam ni verdict bi tranché nañ ko di fàttali rek nag six mois prison yu Kaliphone sàll yi li ko waral moo di ab coup ak blessure ginnaaw lu ñu nemmeeku ci ki nga xam ne moo di yaramu Adja Thiara Diop ginnaaw ba nga ko giñee li nga xam ne moo di viol ba tey dañuy desandi ci journal bi daal di dem jëli ki nga xam ni moo di Sanex ñu gën ko xam na ci comédien di ab artiste buy yëngu ci wàllu théâtre moom nag di Sanex nag fan yee ñu passé acteur bi di nga xam ni moo di lamin Ndiaye génnoon na rek di xam ne ni nag ki la ki la dip Sanex dañoo liggéey ba pare moom nag jotu ko fay li nga xam ni moo di xaalisam naka noonu nag si Sanex génnee di leeral rek que ni nag xaas bi na cee jotul bu ci jotee rek euh, xaalisam ki nga xam ni moo di Lamine Ndiaye ndaxte ñoom duñu liggéeyal kenn te duñu ko fay ginnaaw ba loolu amee nag moom mi di Sanex génnaat na rek di xam ne ni rek dafa am ay problème mu caché mais nag dina dox ci bi lépp problème que léegi-léegi rek dinañ ko saafara dañuy dem ba Mali fekki fa ab accident bu dox ci ab car civil bu yeboon ay militaire car boobu nag dafa am accident ndax dafa dal ci benn engin bu ñuy wax engin explosif ba nag oto ba daal di tàkk ba fukki civil jos cee ñàkk seen bakkan li ni mel nag mi ngi xewee foofee ca Mali ci journée bi ci diggante midi ba une ci suba ñoom nag yi nañ ko ab groupe terroriste rek ñoom jàpp na li ñu mel que dañ ko provoqué que lu ñu mbébatoon la ba tax na nag yoon dina amal ab enquête ngir leeral bi dépp mbir ba tey dañuy desani ci xibaar yi dem jëli ki nga xam ni moo di nabu Dash nabu Dash nag ku ko dégg nag danga koy xam ci influenceuse moom nag ku adepte ci réseaux sociaux yi la ginnaaw nag fan yee ñu génn moom nag ci di nab dash nemmeek woon nañ fi dafa jotoon am ay problème ak ki nga xam ne moo di jëkkëram di Mrs Mergane tey nag moom mi di nab dash xëy na fësal ci paasam ni rek jubboon ak jëkkëram moom nag fan yi ni passé dafay mel ni xelam xawoon naa dem ba mu jotoon a sax génn Sénégal dem fi nga xam ni moo di Congo ci dëkku yaayam rek ngir nga xam ni moo di faju fu la foofu noonee ba tax na nag moom mi di nab dash nag génn def ab audio di xam ne ni rek nag mu ngi jéggalu bu baax ci nga xam ne moo di ñaareelam ci wax ju ñaaw yu mu jotoo yëkkati ci moom te nag moom nee na moom moo fi mujjee ñëw te dina jubboog ñoom te li ko ñor leen du lenn du dul toog sëy sëyam politique ginnaaw ba nga xam ne kii di Coura Macky jot na fee nekk député li ni mel nag sookee na ñenn ci internet yi ak ñi nga xam ni ñooy anti Macky Sall yi ba tax na coow jib na fu ne ci réseaux sociaux yi foo nekk rek mu ngi fay nekk di wax ak bind xibaar yi nag dinañ ko ndar keppeek ak footballu Sénégal ginnaaw ba ab joueur bu bokk ci sélection Sénégal bu war a jëm ci coupe du monde bi di nga xam ni moo di Moussa Diakhaté mu am ab blessure ba nga xam nekkul loo xamante ni leer na mbokki internet seen active tv tey nag leen leen indi ci li gën a fës ci xibaar yi di daje ëllëg waaye laata loolu woy leen di abonné te bu leen fàttee appuyé wu ci cloche bi pour di mën am suñu ay vidéo ak suñu ay notification à la prochaine ci yeneen rubrique fii seen chaîne chaîne active la chaîne au cœur l'information à la prochaine